wax bu fekkee jëf da koo tungoom daanaka dootul bareeti warata bari bu demee bay peese wax ak jëf ñu boole leen di leen peese ñu yam kiy jëf bu yeboo mu bàyyi tey nag dafa jëm ci sëriñ Moustapha la karam cant goo xamante nii damay jàpp ne jullit yépp wala taalibe sëñ Tuubaa yépp amee nan ko ci jëf jum jëf ndax loo xamante nii dafa waroon ñépp ñépp yow nga jël ko def ko te yéene waaleel ci ñépp loolu jàpp nañ ne ku war a sant nit war na laa sant moo tax sëñ bi la woykat ba doon wax ne ko mbàkkay jaajëf yaa yeyoo jaajëf waaye so sëñ bi yaa yeyoo jaajëf sëñ Moustapha karam jëf nga loo xamante ni tamit dafa mel ni ab denc la boo xamante ni sëñ Tuubaa dala koo dencaloon ndax maam Mor Anta Sali ba mu neleweeg léegi ay nangami nangami at la at yooyu nag suñ demee ba barabam bu ñuy tudd bindati taarixu maam Mor Anta Sali bindaale ci sa taarix wax dëgg yàlla loolu lu kawe njortu la day mel ni ab denc la woon ak fàgguteef la woon boroom xam-xam yi dañuy wax ne nit mënta lekk lu dul wërsëgam te lii wërsëg la ci say wërsëg te it dawoo xëccuwoo ko ngir jot ci sëñ tubaab moo la ko jox ngir nga liggéey ko ba nga koy liggéey tamit eh, liggéeyoo ko ci ngir danga ko war a liggéey rek walla danga ko mën a liggéey wala dangay sama xarit wala danoo yàgg tax sëñ bi jox la ko déedéet sa pas-pas la ak sa pëstéef moo tax ñu jox la ko sa pas-pas ak sa pëstéef liggéey bii de dab nga ñu ñu bari ñoo xamante ni rawoon nan la waaye ñu baree bari dootuñu la mën a dab ndax liggéey bi nga liggéeyal Maam Mor Sali ndax Maam Mor Sali sëñ Tuubaa moom jàpp naa ne buñ koy tudd Maam Mor Anta Sali la ndax nit koo xam ne dangaa dikk fekk meññ su rafet nga bokk ca sa waajur di nitug diine day am ñoo xamante ni mënuñu woon a feeñ ci ci ku mat cër ba ku mat cër ba ñu jox la ko mooy sëñ Tuubaa mënu woon a feeñ ci kenn ku dul Maamoor Anta Sali ndax moo àttanoon cër bi kon bu fekkee ne dañ laa jox liggéey boobu sëriñ bi nga liggéey ko ah dëgg dañ lay sant dañ lay sant bu baax a baax te sa bëgg sëñ tubaa ak sa sant sëñ tubaa moo tax ak yëg li la sëñ tubaa defal ba nga kennal ko moom dong nga doyloo ko ba lu sëriñ bi amul bëggoo ko loola moo la jox lii tey am na sa bàjjan walla kenn ci ko waxoon woy woo xamante ni woy woo dinaa ko àbb jox la ko la soxna may Kubra waxoon ne Maymunatul bintul Xadim war na la foo toll di jéem lu neex sëriñ bu mag bi ndem am nga ci ngor dara dara dara waaye woy moom sëñ Moustapha wax dëgg yàlla sant eh, gi ngay sant sëñ Tuubaa te kennal ko te xam ne lim la defal loolu moom jàpp naa ne woy woowu yeeyo nga ko beneen bi ci des mooy fi nga jaarale mbir mi ndax biñ la ko joxee danga wax ne lu waaye di def dangay ñëw def ko bu laajee ñu fay la ñu fay la bu fekkee dangaa ànd ak man pas-pas ñu ànd yéene ba ngay teg xeer wit nga woo koo xamante ni moo la gën a jege Mame ant Anta Sali wala moo ci ñi gën a jege Mame ant Sali la bokk bu sëñ Basiru Anta Ñaŋ mu ñëw tegal la xeer wa nga ne ko nag dama xam ne rek lii sa mbir la waaye sakkuuma sax ku ma ci def loo dara ku ma ci def dimbali ci saayir dara waaye nag yéen yéen a fi nekkal kii ñuy liggéeyal kon tegal ma ko liggéey booba bi ñu ko tegee muy gis ngeen liggéey bi ni mu toll mu miire ko miiraay boo xamante ni xam naa ne fii ay at yu bari ca kanam miir bi dina fi dox di dem di dund beneen bi ci desaat liggéey ba nga liggéey ko ci liggéey bu gaaw a gaaw loo xamante ni ñaari weeram li tax mu mat ko wala mu àgg ko muy koor gi fi dox ku nekk xam na ne koor xatar bi mu am ak taxawaay bi ngay taxaw ci wetu sëñ Muntaxa loolu tax na mu àgg te jii bu la sëriñ bi joxaatoon beneen liggéey ci ngay gën a bëgg dangay ngay fàtte sax ne liggéeyoon nga bële liggéey kon sëriñ bi xam naa ku dégg ñuy wax sax di nga wax ah Saliou mi na dee def mu baalax déedéet du mu baalaxa de nit boo jonjowut ak moom walla xamoo ko xamoo ko yàlla def na tamit jikko yi mu yore jikko yu tedd la xam naa la karam ji moom feeñ na ci moom bu baax feeñ na ci bu baax a baax euh, feeñ na ci bu baax baax baax baax waaye tamit euh, pësteef bi mu ko liggéeyee pësteef bi ak ki mu ko liggéeyal euh, jàppoon naa ne nii mu ànd ak sëñ taxaa booba sëñ Muntaxa nekkagul li mu nekk sëñ Muntaxa muy ànd ak moom ba sëñ Muntaxa di sëñ Touba moom muy sëñ Abdoulah Karam tey mu liggéeyal lii jox ko teg ko ci loxol sëñ Touba que leen boole woon xamoon na ne boole bi si laat boole booba dana am dana am àgg foo xamante ni kii dana nekk eh, eh, ki nga xam ne moo jiite guerre bi waaye kii dana nekk soldaaram ci wetam te bi mu ko koy jébbal dégg nga ko ab soldaar du déglu kenn lu dul ka nga xam ne mooy capitaine am wala mooy généralam nee na ko dégluwuma kenn nag yow rek laay déglu jël laxasaay gi takk ko ci ndigg li loolu lépp dars la ak jàngale la loolu lépp dars la ak jàngale la ki fi nekkal sëñ Tuubaa nag ñëpp dañ ko war a soutenir soutenir ko mooy lan mooy fexe ba lépp lu mu bëgg ñu koy xalaat ak mën naa am nan lay amee ku nekk di ci seet lan moo ci sawaru gara waaye nag mu protéger koy tamit sécurité ko ci du la dégg ci dara loo xamante ni lu doyee dee dégg la loolu jàpp naa ne ñun ñëpp ñoo ko xamandoo ci moom kon daal sëriñ bi xoli taalibe yëpp sedd na euh, fële nag ku nekk xam na ne la fa des ñaara ko man mooy borom alal ju bare bare bari walla état ndax diggante sa taliba gis ngeen bi fi sëñ bii ñëw gis ngeen rang-rang bi nii te digganteem ak faas euh, matut juróomi kilomètre wala juróom benn kon loolu moom sëñ Moustapha ci yéeneem su ko manoon buy jox sëriñ bi caabi ji da koy joxaale na ko tëli bii maa ko fi defaraale kon loola am na ñu mu doon seen fàgguteef ñoo xam sëñ Moustapha ubbil na leen bunt ba ndax nee mu ko taarale ni defar ko képp koo xamante ne boroom alal nga boroom xaalis nga te mën a defar lële ah bunt boo bunt buntu texee nga fi de buntu boo xamante ni du bunt yu ubbeeku yu bari de bari na looy defe ne bunt bu ubbeeku la nga defe ne daraa nekk ci biir bunt ba te dara nekku waaye fii moom daraa nga fi liggéeyal maam Mor Anta Sali loolu moom amoo kooku kookoy séqal koy rendre compte ku du sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek ngay rendre compte ku rendre sëñ Tuubaa nag te it doy na sëkk ëllëg yomal xayaam nga dem jàkkaarloog sëñ Tuubaa mu doon sa ujja nga ne ko loo ma defal lan nga ma liggéeyal yow mi ne sama taalibe nga ne ko man di defar naa tëli ba jëm ci sa waajur wa ba jëmoon ci Maamor Anta Sali daan ko fa jëm ngir siyaare ji danga daan am ay jafe-jafe ak i méttit méttit loola nag moom laa ko def jàpp naa ne loola moom <laughs> ay yal na nu yàlla wërsëgale lu mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa ñi ko man de fii nu toll nag xam nga àdduna dafa am yu fi yu fi kii ñi xam àdduna ñetti fan dong ci lañ ko tënk euh, sëñ Fàllu moom dafa waxoon ne àdduna ñetti fan la démb wëy na euh, ëllëg ñëwagut ñu ngi ci tey kon tey rek moo tax képp koo xam am nga dara tey jii te mën a defar tëli bi war ngaa dem defar ko sëñ Abdu Lahat waxoon ne euh, tegu nunu démb te ëllëg ñëwagul tegagul nu ko kon tey lan nu teg <laughs> kon tey ku man def dara tey moo tax woykat ba ne ku man dara ku xëyib man dara jógal nga dem defi dara def dara nag mooy def ko ci lu neex yàlla kon si Moussa yal na yàlla gërëmal la boppam yàlla sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom nga bëgg te koy diir waxtu wu ne yàlla nga taseeg mbégam yàlla nga am ngërëmam